mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun euh, tey nag ci émission gox bi nga xam ne nag war nañ ko amal ñu ngi ci am fas yéene rek dalal ki nga xam ne moom moo di Mody Ndione moo di coordonnateur bu mouvement ànd liggéeyal Toubacouta bàyyee ko ci village bi nga xam ne nag moom la ñuy wax Dassilame Socé n'est-ce pas Mody Ndione ñu ngi leen nuyu di la sant di la gërëm bu baax ci ni ñu nangulee invitation bi. bu baax a baax. Euh, di kontaan ci invitation bi eh, di leen wax ne tamit eh, eh, waa Ñombaato yëpp mhm. ñu ngi kontaan ci invitation bi tamit mhm. en même temps tamit nga may moo profité ma nuyu mhm. sama waa village di Daas la Socé maa ngi nuyu tamit monsieur le honorable député Pape Seydou Dianko yaay Fatis yaay chargé de com moom oui Euh, maa ngi nuyu tamit euh, le secrétaire général du gouvernement. Mhm. Euh, monsieur Abdoulatif Coulibaly. Mhm. c'est le ministre. Mhm. en même temps maa ngi nuyu ñombaato bi yëpp. département de Foundiougne bi yëpp. surtout sama commune bi Toubacouta. alors tey dañuy waxtaanee ci ñuy dugg ci émission gox ak goxaan yi coronavirus bi askan wi ñu ngi nemmeeku ni chiffres yi wala cas yi léegi mi ngi wàññeeku. alors tey euh, gis nañ ni askan wi ñu ci bari léegi takkatuñu ay masque defatuñu ay gel di préserver wu ci coronavirus bi alors tey lan moo ci sa xalaat bu njëkk période bi tendance mi ngi wàcc léegi. waaw Mbemba xam nga coronavirus boo ko waxee feebar la comme yeneen feebar yi. Hmm. mais moom lu ko wuteeg yeneen yi rek moom wall bi moo gaaw. Hmm. léegi bu ko defee dafa am ay prévention yoo xam ne euh, ministre de la santé et de l'action sociale joxe na ko. Hmm. léegi man si li ma xalaat si loolu. Mhm. mooy askan bi si boppam moo des léegi pour ñu taxaw mais ñu taxaw euh, sécuriser seen bopp di taxaw euh, feebar bi. Mhm. parce que état bi euh, lu mu si war a def daanaka def na ko si. Mhm. wala góorgóorlu na si bokk ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si yonent bi nag daf daan wax ne mu ne. Eh, alwikaayatu ay eh, arab yi dañ doon wax ne alwikaayatu xayrun mhm. min al laaj mhm. mooy prévention moo gën faju mhm. arab di fa wax di ko wax ne dirhamu qintaarin xayrun min eh, dirhamu wiqaayatin xayrun min qintaaril laaj mooy benn dërëm bi nga xam ne moom nga war a musloo moo gën ay million yi nga war a fajoo kon bu ko defee man si li ma xalaat si coronavirus bi wàccoon na mais askan bi moo des ba tey ñu jël seen matukaay kon à travers seen ligne bi dañoo maa ngi lancé message. Mhm. nit ñi nañ gën a respecté waat. Mhm. masque yi. Mhm. ñu raxas waat seen loxo yi. distance yi ñu respecté ko. bu ko defee rek dinañ wàcc. incha allah parce que euh, gouvernement bi lu mu war a def def na ko ba pare. ñun ñoo si des. léegi euh, gis nañ ni li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu woowu euh, lu bari léegi respecté tuñ ko ba njiitu réew mi keroog sa jëm ñaajo. nee na nag bu ñu amaatee nag ñaareelu vague coronavirus bi li ni mel sunu koom réew du ko daal di attan tey lan ngay wax tey ci wàllu wi ni mel. waaw c'est vrai que parce que le président de la république lu mu wax loolu moo am ndaxte defoon nañ ko fi mu indi gàllankoor yow sa yéen yéen journaliste yi sam gis ngeen ko ñun nit ñi ñu ngi commencé woon man ñu ngi commencé woon manifester. Mhm. parce que ni affaire yi méttee. Mhm. te ñëpp xam nañ ne laal na si économie réew mi. Mhm. léegi lu ñu daloon bu ñu naroon dalaat mhm. te xam nañ ne euh, bu ñu ne coronavirus mhm. wala confinement bu ñu ko waxee lu muy laaj mooy koom la laaj mhm. koom-koom la laaj léegi koom boobu bu demee bi état bi léegi lu mu joxe woon mu nar koo génnewaat mu nar ñu indiwaat beneen jafe-jafe mais dañuy alerter kii bi askan euh, bi askan wi ñu jël seen matuwaay ndaxte yéen ñëpp xam ngeen ko maanaam demoon nañ ba sept euh, croissance bi dem na ba sept pour cent mhm. mu wàccaat bi un mhm. loolu ñaanuñu yàlla mu dalaat ñu mhm. kon loolu askan bi moo war a jël boppam moo war moo war a taxaw boppam coronavirus bi ñu def suñu matuwaay bopp ñu jël ko loolu waruñ si xaar état état dafa war a accompagner mais ñun ñoo war a jël suñu matuwaay bopp ñu raxas suñu loxo yi. Mhm. ñu respecté dis eh, eh, distance bi ñu ñu lii ko ñu ñu respecté ko. Mhm. mais masque yi tamit ñu takk ko. Mhm. parce que boo di xoolee si dëkk bi man maa ngi nii si oto bi laa dugg. gis naa benn waaye boo xam ne mu ngi xuloo beneen waaye ne takkoo sa masque ko lu tax xam nga loolu. loolu état bi mënu si dara. nit ki moo ko war a defal boppam. mais nit ki moo ko war a defal boppam. mbaa xam nga ne. Euh, wolof Njaay dafa ne li demba xam-xam boppam. Mhm. Euh, euh, loo xam-xam demba demba xam gën laa xam boppam. Mhm. mais boo feebaree yow yaa dem hôpital. kon yow yaa war a jël sa matuwaay bopp. Mhm. balaa état bi di la taxaw. parce que bu ñu nee bu bu dee dangaa feebar. dañ la yóbbu hôpital bi. ñu faj la. mais nag masal rek lañ si mën a am. wala ndeysaan. voilà yow coordinateur mouvement nga. ànd liggéeyal Toubacouta nga yeewoo foofu yéen ci. période coronavirus bi ndax génn ngeen seen gafa jàppale askan wi ngir yokk sensibilisation bi ci askan wi def ngeen ay initiative yu mel noonu am déet waaw euh, Mbemba loolu boo ma si laajee dina si kontaan lool mhm. ndaxte coronavirus feebar la boo xam ne Sénégal yëpp la daj mhm. euh, yàlla dimbal nañu nag ñun gox bu nekk euh, tasaaruwut foofu bu baax mhm. xam naa si ndimbalu yàlla bi moo tax euh, euh, laaluñu si bu baax parce que su ma fàttewut yaakaar naa lu ñu am si cas bariwul <laughs> mhm. amatul dix mhm. décès yi tamit euh, su ma fàttewut yaakaar naa deux la mhm. <coughs> loolu bu ko defee ñun ñi nga xam ne suñu mouvement indi liggéeyal suñu gox ma xam ne daas lame soose la soxee ko indi nañ si poste bi ay gel ay saabu thermoflash si école bi yëpp def nañ ko indi nañ huit cent masques si mhm. biir dëkk bi tasaare ko si village si village bi mhm. yaa ngi dégg mhm. monsieur le maire honorable député jël na lu mot euh, ay masques yu bëree bëri bëri yoo xam ne tasaare na ko si commune bi te loolu kenn du ko weddi ñëpp gis nañ ko ñaata village la am ci Toubacouta ak li ko wër Toubacouta mu ngi am cinquante deux villages ak sept amoo mais ñoom yëpp ñoom yëpp daan am nañ am nañ seen masque gel yi ñu ngi koy def dañ koo séddale yóbbu ko si Sokone mhm. donte Sokone bokk suñ commune mais moom moo ak accompagné kii bi naka suñu village yooyu fa nekk mhm. mais tasaare na lépp ñëpp jot nañ seenu zel euh, mhm. seeni saabu mais lépp loo xam ne prévention la pour nit def ko pour feebar bi bañ laa dal euh, monsieur le def na si góor góorgóorlu euh, ba ñëpp jot nañ seen bos loolu man coordonnateur seede naa mhm. mais bu ñu la déggee ngay wax kon euh, génne ngeen budget bi toll ni seen gafa jàppale ko askan wi ngir période bi metti woon na lool ba tax na yéen itam ngeen génnee ci seen gafa daal di leen ko jàppale askan wi. oui Mbemba loolu am na loolu kenn du ko. ñaata ngeen génne mairie bi. mairie bi génne na lu mot neuf millions yi quelque. Mhm. neuf millions cinq cent. Mhm. neuf millions cent génne nañ ko loo xam ne pour euh, ñu jàppale nañu ñi si wàllu kii bi euh, si wàllu gel yi. boo seetloo eh, eh, période période kii bi. confinement période confinement bi. Mhm. métti woon na méttiwaay boo xam ne eh, gouvernement bi defoon na effort. Mhm. joxe ko. Mhm. joxe joxe ay ceeb. joxe ay diwlin mais maire yemut si loolu. jëlaat na 36 yi nga xam ne distribué na ko si 52 village yi ku ne jot na sa bos. loo xam ne du du du loo xam ne si état la jógee si poosam la jógee. def ko si. def ko si askan wi. Euh, euh, ñu mu jàppale ko si askan bi ak ñi nga xam ak mu bàyyee tamit mhm. otom mhm. spécial boo xam ne pour pour en cas bu jotee mhm. cas bu amee mu évacuer leen ñu yóbbu ko Sokone directement loolu yëpp def nañ ko si en même temps tamit si bureau si biir kii bi si bureau confinement bi le maire taxaw na accompagner ñëpp sensibilisation bi am na parce que nit ñi dugg nañ si dëkk yi di wax nit ñi di sensibiliser nit ñi yaakaar naa sax mën naa wax ne loolu bokk na si lu tax mhm. tax uh, uh, feebar bi feebar bi lawul foofu mhm. yaa ngi dégg mhm. kon loolu ñu ko si gërëm loolu di ko si sant ok kon su ma la déggee dafa mel ni message bi ci diwaanu Foundiougne uh, Sokone Toubacouta coronavirus bi ñu bari ñu ngi respecté port masque yeeg gel yeeg distanciation yi waaw loolu su ma koy wax rek damay gën a ñaaxaat nit ñi xam nga sénégalais yow xam nga ko boo ko ne yooyu fu mu toll nii macha allah rek day bàyyeeku te bàyyi ko yàlla na si yàlla musal mhm. léegi dañuy gën a ñaaxaat damay profiter si loolu mhm. département de Foundiougne ak commune de Toubacouta ñu gën a respecter mhm. masque yi ñu gën a respecter ñu gën a distance yi yenn xumbaay yi tamit nañ ko arrêté wàññi ko wala arrêté ndax a ñu wàññi ko sax laa bëgg a wax non non mais ñu wàññi ko sax laa bëgg a wax parce que ñun nuñu suñu suñu suñu réalité nu mu mel mooy yenn yi mënuñ ko ñu mënuñ ko def parce loolu dafa nekk si ñun mais dinañ ñu ngi sensibiliser nit ñi mairie baa ngi sensibiliser nit ñi te nit ñaa ngi respecté. Mhm. parce que loolu laa mën a seede lu ma gis. est-ce que fas yéene ngeen tey ci terrain bi ndax fu ñu jëm nii fan yi ñu génn ñaari fan yi kaa yi nag mu ngay gën di yokk mhm. euh, ndax fas yéene ngeen wàccaat ci terrain bi yokkaat sensibilisation bi ndax ñu bari dañ jàpp ni coronavirus bi euh, ba léegi nag euh, demul de mi ngi fi mais ñu bari dañ jàpp jeex na. mais Mbemba ñun mosu ñoo jóge si gis nga dinaa la wax benn affaire mu le maire. Mhm. moo nekk koo xam ne. Eh, lu dul eh, période bii mu nga xam ne mu ngi assemblée. Mhm. lépp village la koy def mooy mooy maire bokk na si maire yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a jege seen askan loolu man seede naa ko mhm. kon bu ko defee ñun mosuñoo jóge si terrain bi mhm. ñu ngi sensibiliser nit ñi ñu ngi tasaaroo tamit li nga xam ne moo mun a tax ba coronavirus bi du du du du law te yaakaar naa réussir nañ si à soixante quinze pour cent boo seetloo wala quatre vingt sax parce que tey euh, bu di woon taxawaayu maire Euh, kon maara day taari ak ak monsieur le ministre euh, mhm. lu mu def sookoon mhm. ak si département bi boo seetloo bu du woon loolu àddina tukki ginnaaw ndimbalu yàlla mhm. parce que taxaw nañ si bu baax a baax a baax a baax euh, nit nag bu defee lu baax danga ko naan jaajëf jaajëf sensibilisation bi mu ngi continuer di dalal seen xel si loolu mais maa ngi ñaaxaat waa département de Foundiougne ñu gën a respecté ñu gën a respecté mesures de barrières yi surtout sama waa village a di moytu jegeloo bi voilà. 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mbokk yi itam yéen itam mën ngeen dugg bokk ci waxtaan bi nga xam ne nag moom la ñuy amal te nag suñu waxtaan wi nga war a tënku ci euh, euh, booru Foundiougne Toubacouta tey. dañu gis ni Mamadou Ndione gis nañ ni euh, fu njuñ buñ ko tuddee rek xel yu bari dem ci port bi mm-hmm. ñu ne euh, yéen walla njiitu réew am na lu mu fa def loo xam ne boo ko làmbee daj ko lan la lan la fa def waaw même ba loolu boo ma laajee tamit loolu dinaa si kontaan lool mm-hmm. eh, département de Foundiougne département président de la république la parce que fa la jàngee mm-hmm. moom xam na ko kenn du ko ko wax am na lu mu fa def am na lu fa manqué. lan la fa def. voilà le président de la république. Mhm. ñun bu ñuy man bi may jóge bi may nekk euh, village di ñëw dakaar woon. Mhm. Eh, eh, yoon yoon fu yoon Foundiougne bi. Mhm. dafa amoon problème président moo ko taxaw moo ko defar diggante Sokone Kerwaali eh, diggante Sokone Kerwaali Ndiaye. mais président moo ko defar port bi. président moo ko engagé président moo ko engagé. waaye mhm. ah, inauguré nañ ko tàmbaliwul de. waaw mais mais mais ñu ngi si yoon bi xam nga lan la amoon taw dégg si si wax. Mhm. mooy jafe-jafe am na te taxawuñu si. taxawuñu si mais euh, liggéey bi mu ngi en cours mais mën nañ patienter ñu ngi si ko yaa ngi dégg ñu ngi si ko am te dinañ si egg te am nañ ay eh, xibaar yu firnde ne état bi mu ngi si te dina si taxaw parce que li si gënoon a jafe def nañ ko natt nañ ko immigré na xam nañ ko mais léegi commencé bi moo si des hmm. loolu kay lu si jar yaa xam te ba si hmm. te saa yoo toujours yaa ngi gis monsieur le maire mu ngi koy wax hmm. mu ngi koy kaas léegi nag ñun lu ñu man mooy eh, lu eh, li nga xam ne dafa manqué si département bi mooy ñu taxaw wax ko te maire loolu moo ko yóbbu assemblée boo bu dee da koy suivre loolu moo ko yóbbu assemblée te mu ngi si taxaw mu ngi si bay bay mu ngi si bay waaram si loolu le président la république def na département de Foundiougne amélioration yu bëree bëri bëri la si def mhm. parce que école yi tey école yi am si si si euh, département de Foundiougne mhm. président moo ko si def boo teetloo kii bi port bi amut woon moo ko fa def euh, kii bi euh, pont bi defar na ko mhm. amélioraat na ko defar yoon mais léegi loolu taxawaay la boo xam ne bu bu am solo la. <laughs> Euh, Mbemba léegi nag boo ko defee nag euh, euh, nekkut ne lépp lu mu def ñu ne ko gongo. Hmm. am na lu manqué am na lu def. Hmm. lan moo manqué pour ndaxaar. Hmm. ndaayaan waaw ndaxa nga. ndaxa nga waaye. war na si mun a jël ay emploi yi nga xam ne ñun suñu jeune jeunes yi war nañ fa mun a liggéey. te xam naa ne par exemple mu ngi si loolu. parce que bi may mujjee wax ak monsieur le maire xam na ne wax na lool ne promise nañ ko ne dina am ay jeunes yu bëri ñu si jël te euh, le maire mu ngi si taxaw. Mm-hmm. kon loolu jéego la boo xam ne dañ ciy ñaax état bi si loolu. Mm-hmm. pour mu gën a góorgóorlu si euh, liggéeyu jeunes yi côté boobu si port bi parce que mën na jël ay jeunes yu bëri. Mm-hmm. ay jeunes yu bëri bëri bëri mën na leen jël. kon bu boobaa euh, ñun dañuy ñaax le président de la république. mu jël département de Foundiougne en mai. parce que département la mu gën koo toppatoo. am na lu mu fa def gaa. Mhm. mais nag mu gën koo yokk. Mhm. loolu duma la ko bañal. Mhm. parce que nekk si régime taxul nga wax loo xam ne tamit dafa manqué si yow. yaa ngi dégg li ma la voilà loolu mooy loolu mooy problème bi mais le président de la république. mu ngi taxaw fu ñuñ bu baax a baax a baax. ok mais am na ñenn ñi nga xam ni boolewal nañ seen bopp ci benn collectif. naam dégg dégg xam nga leen. wala bokk ngeen yéen a bokk ci li ngeen di ànd. tey ñoom taxawal nañ benn collectif def mémorandum mhm. ne ñoom askan wi si dëkk ba li leen métti mhm. moom lañu ñu ci kayit mhm. daal di koy jox autorité yi ngir ñu saytu leen loolu lu tax yow bokkoo ci ñi nga xam ne ñoom def nañ loolu waaw xam nga ñoom lu ñuy xeex noonu waa PEDIF ngay wax waxal tur bi rek waa PEDIF waaw dama fàtte tur bi voilà li ñuy xeex noonu loolu ñoom fekk nañ ñun ñu xeex yéen yéen koy xeex mais ñu koy xeex ñu ngi koy xeex yaa ngi dégg Euh, bu ñu defee peut soo gisee bokk ma si. <laughs> Mhm. balaa nga siy bokk mais dañ la si invité. invité wuñ ñëpp parce que dafa am ñu jël ak yoo xam ne ah. jëluñ leen. loolu loolu ñoom xam nañ ko te li tax a jóg pédif man pédif konte wu ma ko si benn kii boo xam ne euh, kii la benn euh, kuréel la boo xam ne dafa taxaw ah, man konte wu ko parce que xaw ma seen biir lijjante wu ma ko. Mhm. ñun man sama mou suñu mouvement bi lañ xam. Mhm. te département bi moo ñu tax a jóg commune bi moo ñu tax a jóg pour defar ko. te ñu ngi si yoon bi. yaa ngi dégg li ma la euh, boo seetloo doxalinu pédif am na suñ booy yi nga xam ne bokk nañ si léegi nag arab yi li ñuy wax fardu kifaaya moo am rek ñeneen yi buñ bokkee ñeneen yi bu a jóg te ñun tamit département moo ñu a a bokk a nekk la wala mais li mhm. mhm. bu fekkoon ne département moo leen tax a jóg mhm. te ñoom ñu fekk ñu ñu ngi xeex si loolu mais lu leen teree ñoom ñu bokk ak ñun maire ku ko xam xam nga ne moom département bi jaral na ko bakkanam ñu ne maire bi moom taxawul nekkul di leen taxawu ci wàllu woowu. loo xam nga Mbemba loolu. du mhm. waxu waxu taxaw. Mhm. honorable député Pape Seydou Diangon képp ku ko xam. xam nga ne département bi jaral na ko bakkanam loolu kay li ma lay waxee leer na. Mhm. bakkanam jaral na ko ko. léegi lan moo des ngeen boole seen doole. xeexandoo ko loolu laa lay wax moom fekk nañu ñuy xeex. yow fekk nga honorable moo leen njëkk si politique ñu ngi xeex. ñi ko ñi ko créé mhm. mais ONAMOL moo leen bokk na si ñu mu yar si politique kon fekk na leen si xeex bi léegi lan moo tax ñoom ñëwuñu renfort pour kii ñu dëgëral ko pour ñu mun a wéyal xeex bi mhm. lu tax loolu question bi foofu la lu tax lu tax defuñ loolu mais kon loolu ñu fekk ñu si la ñu créé seen bopp ñu bëgg ñun ñu tas suñ bos ñu ñëw seen bos loolu mënu nekk mhm. loolu am na leneen lu muy c'est-à-dire man li ma jàpp dama lay wax li ma jàpp nañ continuer seenu xeex ñun ñu continuer suñu Euh, défendre li ñuy defaree suñu département bi. Mhm. mais mais li si kanam rawil bot rafetlu naa ko nag seen seen groupe bi rafetlu naa ko parce que comme ñu ngi si li ma dégg si émission bu passé. Mhm. Euh, li ñu taxaw noonu mhm. maa ngi ko déglu. Euh, li ñu wax noonu. loo ci d'accordul loo ci d'accordul rafetlu naa ko. li ma si d'accord bari na. mais loolu dinañ si ñëw. jukki ko bismillah benn. parce que tey commune de Toubacouta li ñu si wax. si wàllu ndox bi amul. parce que lu dégg naa si émission bi ñuy wax ne euh, commune de Toubacouta. Mhm. am na dëkk yoo xam ne amuñ amuñ ndox. Mhm. loolu amul amul électricité bi. Mhm. honorable bu muy ñëw si bu muy ñëw si à la mer. six six euh, six sept villages la fekk yi nga xam ne ñoom ñoo am électricité. mu ñëw taal onze mais boo waxee na tey. ne am na defut jéego. Mhm. mais loolu kon am na ay jéego yu fa am na jéego yu fa def. voilà jéego yu léegi yooyu lañ bëgg nga waxal ñu ko fii yan jéego lañ ci def. ci wàllum ndox wàllum ndox bi ba pare ñu ñëw ci wàllum ndox bi. dafa bari. Mhm. gis nga ndox bi. Mhm. Eh, honorable bu muy ñëw. dëkk yi nga xam ne fekk na la ñu am ndox. six villages la. mu ñëw alimenté quarante six villages quarante six plus six ñaata la lay jox. cinquante deux. cinquante deux villages yi kon mën naa la wax ne cinquante deux villages yëpp am na honorable ba muy ñëw dëkk yi nga xam ne dañoo gën a sori si île ba mhm. comme Bosinkan Betenti mhm. euh, yeneen ko ñaari jinak yi mhm. mais on a moo fay kii moo fa yóbbu ndox moo fa yóbbu ndox forage yi nga xam ne samp nañu jox nañu trois forage yi nga xam ne benn baa ngi Tabanding benn baa ngi Suuru mais benn baa ngi euh, kii naka Tayba benn baa ngi Toubacouta boo xam ne ñu mu ngi encore président Macky Sall jox ñu foofu loo xam ne mën nañ si financé nañ si yaakaar na deux milliards sept cent millions mhm. mais loolu du bilan loolu jéego la jéego la wala du jéego jéego la mhm. def na si loolu mhm. man mii sama village miin man ndoxum teen laa doon naan ndoxum teen laa doon naan dama doon temps bon ñun bu ñu nekk man bi may bi ñu nekk xale sax suñ suñ eh, kii bi euh, teen bi da doon da doon ŋàcc benn ndox bu xonq lañ doon na kon kan moo tax ñun naan ndox bu sedd tey ginnaaw yàlla mais honorable la léegi am na ay am na robinet actuellement ne ñu ngi koy décentraliser dëkk ba mhm. loolu li ma wax nii kenn du ko dindi mhm. kon bu boobaa am na ay jéego yu mu def si ndox mhm. na mën naa wax ne jeex na sax bu dee wallu forage la ba tey dinaa si taxaw am na dëkk yoo xam ne man sama dëkk village si la bokk am na àll bu ñuy wax ndenderleng su ma ko waxee xam naa ñu nekk xel yu bari xam nañ all la boo xam ne woon yow mii bu ñu la fa yónni woon doo fa dem ñii ma woo faa dem lu fa nekk dafa bari ay ñanaaw ñoo fa nekkoon mais tey fu tol ni nii mën nga fa samp dëkk euh, quinze hectares la collecté dëkk bi non àll ba quinze hectares mu collecté ko yokkaat leen beneen quinze hectares mu ne trente hectares mhm. sampal leen fa forage actuellement nii nii ma lay wax nii maa ngi nuyu sama waa dëkk mhm. passage daas la amee soose mhm. jigéen yi fu mu toll nii boo demee doo fa fekk kenn si dëkk bi a ngi si ba ñu ngi béy euh, Mbemba boo doon joxee dépasse bi woon deux mille francs sama dëkk léegi mille francs ngay joxe ah, parce que parce que que lépp ñu ngi koy béy <laughs> te à de maire bi mu ñëwee si campagne bi ba mu ko ñaanee mu la ne dinaa si taxaw taxaw na si Parelba am na benn compagnie bu ñuy wax euh, kii boobu partenaire bu ñuy wax Parelba. Mhm. mais plus de cent millions dugal na ko si foofu pour jàppale euh, femmes yi. Mhm. pour ñu taxaw kon loolu wàllu ndox bi forage bi mhm. wax naa la ko. dégg nga Toubacouta su ma la déggee mooy amatul problème ndox. non bu dee village yi amatul problème ndox. ndox amatul amul problème mu réglé na ko <laughs> ndox bi moom nañ ko demee côté gars yi mën nañ jaaree feneen mais du kooku du ci problème problème ndox du am <laughs> problème amul problème te maa ngi profité di gërëm président de la république Macky <laughs> parce que euh, forage yi nga xam ne moo nekk Simon Diène ak ñetti forage yooyu daanaka mu boo ko boolee mën na nekk deux milliards sept cent millions loolu du xaalis bu ndaw mhm. dugal na ko moo alimenté ba biir ndox ba eh, betanti mhm. fa eh, fale eh, ñaari jinak yi mhm. boo sinkan ñooñu xam nga ku nekk si biir île nekk si biir île kan moo mën kan moo mën a xalaat ne kooku dina naan ndox ndox bu neex nga dugal tiwo bi nga yóbbu ko ba foofu loolu loolu loolu doy na bi la loolu bi nag te loolu leneen laa la ci wàllum électricité bi nag kon ndox bi mën naa la wax ne réussir na si en cent pour cent pour cent la si réussir parce que mm-hmm. amul dëkk dëkk bu am na benn dëkk boo xam ne sax daanaka ñaar ñaar moo fa nekk Bandiangara am na ndox ñaar ñaar boo xam ne ñaar dëkk ñaar kër moo fa am am na am na am na lii am na am na am na ndox mm-hmm. loolu kenn du ko weddi li ma lay wax ni voilà mm-hmm. léegi te actuellement nii ñu ngi koy décentraliser si dëkk bi mu ngi ñu ngi bëtt daal maanaam tiwo yi ñu ngi koy doxal nit am nañu ñi nga xam ne yàkkamte nañ mën nañ joo jël si bu mag yóbbu ko seen kër nii ñu ngi koy décentraliser ku nekk ba sa buntu kër mhm. pour ñu ñu indi la ko ba sa buntu kër nga xëcc ko dugal ko sa kër jafe-jafe ndox amatul ci village yi wër amatu fa li ma lay wax kay lu leer laa lay wax nii amatu fa jafe-jafe ndox amul lenn kay mhm. xanaa xam nga machine moom machine la parce mhm. que euh, damay koy wax euh, machine machine la forage mën na panne comme la fois passée comme lu panne na ko parce ba directeur bi ñoo fa ñu réglé ko mu tee paan bu ndaw la woon rek ñu defar ko jeex na. Mhm. courant lu fa tumuraanke la itam de. waaw eh, xam nga nit mënul def lépp gis nga Mbemba. Mhm. Eh, doomu aadama mënul def lépp parce que du yàlla. Mhm. yaa ngi dégg la leneen loo gis si àddina benn la commencé xam nga lu ma mënta dégg mooy li ma la doon wax. mooy jafe-jafe am na mais taxawuñ si mais nit ki mu ngi taxaw. kooku bravo lañ ko war a wax man si loolu laa jàpp. bravo lañ ko war a wax euh, électricité bi boo xoolee euh, monsieur le maire. Mhm. waxoon naa la ko léegi bu muy ñëw sept village la fekk muy takk mu ñëw mu ñëw mu ñëw mu ñëw taal onze mhm. mu ñëw taal onze onze dëkk kon loolu jéego la te actuellement nii nii nii Sénélec may na ko euh, ay quota boo xam ne douze kilomètres je pense mhm. yoo xam ne mu ngi koy distribuer actuellement si dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo si des pour ñu am courant pour te li ma lay wax nii natt nañ lépp ba jeex na pare na léegi mu tàq rek moo ci des poto yi ñëw hmm. non non dañ ko nat xam nga dañ koy dé parce que douze kilomètres bu ñu la ko joxee da nga koy distribuer ku nekk deux si dëkk bi village bi nu mu toll loolu si moom la des mais def nañ ko ba pare te actuellement nii nii nii nii poto yi la ñuy xaar poto yi bu ñu samp ko rek ñu. ñu dootul doon ci problème léegi du nekk problème. Hmm. kon loolu village hmm, waaw sa village bi nga dëkk. soose. foofu courant bi nu mu fa mel. voilà yaa ngi indi wax ja nag. foofu nag mooy point ba man courant bi ma yore courant bi du lekk société la foofu dama si profité bu baax a baax a baax a baax Mbemba mhm. euh, sama courant bi dëkk bi yëpp tàkk na alhamdulilah mhm. euh, le maire taxaw na si bu baax a baax bu baax a baax a baax baax si loolu parce que bu muy ñëw mhm. fekk courant amul courant amul woon sama dëkk moo fa indi courant yaa ngi dégg moo wala moo ko taal bokk mais courant bi dafa am lu si laxasu loolu euh, dama si profité wax lan moo ci laxasu courant bi société la mais société bi damay profité à travers seen micro bi. Mhm. ne ñu ngi xaw a rey. Hmm. parce que double facture la ñuy jox. tey euh, Dakar waa bu doon fay cent mhm. ñun ñu ngi fay 1500. ah bon waaw. parce que li tax mooy nu ñu ñu doxale nu ñu doxalee baaxul. yéen est-ce que est-ce que suma facture di ngeen fay lu ëpp 100000. am na ñu am deux cent cinquante mille nga ne am na ñoom moo indil problème boobu voilà loolu mooy problème xeex bi nag foofu la léegi nag loolu dama si profité bu baax a baax le président Macky Sall si boppam moo war a taxaw si loolu ndaxte mhm. moom ñëwoon na si gan gane si mhm. le maire honorable député su wala ñëw na si zone bi mhm. ba fanaan fa doléance yi jox nañ ko ko en mai pour mu xool courant bi nu muy doxee fan yii rek ñu ngi def benn réunion boo xam ne maa ngi nuyu sama euh, chef de village bi Mafouji Ndiaye Euh, ak le euh, suma responsable boobu. bu ñuy wax ñëpp euh, mhm. bu ñuy wax. bu buy jeexal atab atab mhm. maa ngi nuyu gars yi. Mhm. bu ñuy jeexal di nga sant ñoom ñëpp. voilà taxaw nañ. pour ñu taxaw si loolu pour ñu wàññi courant bi. yéen comment ça fait kay du ngeen amu leen ay frigo amu leen frigo yu mag ay ay congélateur ak yeneen yi ngeen di fay ay cent cinquante mille est-ce que yéen itam porté ngeen xeex bi. mais Mbemba loolu mooy wax ji. xeex bi loolu la. te loolu maire accompagné nañ si taxaw na si. Mhm. def na lu ne pour ñu wàññi ko moom si boppam si courant boobu la bokk monsieur le maire si mhm. moom si boppam si courant la bokk. ñu ngi xaw a rey nit ñi nañu wàññi courant bi état bi si boppam lu mu war a def mooy nañu jëlee si société bi yóbbu ñu lekk loolu mooy dëgg. Hmm. loolu lañ bugg ñun waa Ñombaar lu ñu bugg mooy. Mhm. président Macky Sall si boppam. ak ministre euh, de l'énergie ku yor wàllu courant bi. nañu jëlee si société bi ngir yàlla ak yonante bi mu yóbbu ñu Senelec. parce que ñu ngi bëgg dee sama. foofu Sophie Gladima Siby ngay antu ngay waxal moom moo yor secteur bi ah. voilà nañ hmm. na si taxaw nañ jëlee société bi ñu ñu raxasu si moom hmm. loolu mooy solution bi ndax yéen a ngi siy gaañu daal ñu ngi siy bëgg dee hmm. bi ñuy mujjee def euh, suñu suñu suñu réunion bu mujj bi mais ñoom seen bopp da gis koo xam ne dañuy indil dañ lay indil benn facture boo xam ne dañ siy juum man dal na ma dal na keneen loolu du yoon mais à part le maire taxaw na si wax na ko assemblée seen directeur bi woo na ko seen liggéeykat yi woo na leen wax na ko def na lu ne poto yaa ngi nii manqué te te te lii wuñ ko te defuñ ci dara loolu du problème maire du problème état problème société bi la société bi moo narut a def lu baax. Mhm. est-ce que yéen wax ngeen ko waa société bi ñoom ñu dégg ko. la fois passée lañ kii semaine semaine dernière lañ mujjee def réunion. Mhm. ak seen directeur bu mag dinañ si taxaw. Mhm. mais li ma bëgg nag comme ñëw naa fii dama koy lancer. pour li ma bugg si état man li ma bëgg en personne man li ma bëgg ak waa Ñombaato sax lu ñu bëgg. parce que euh, si voix Ñombaato bi lay waxee. nañ jëlee société bi nañ jëlee courant bi société bi ñu indil ko ñu indil ñu Senelec ñu bokk comme ñëpp. parce que Mbemba yow mënoo comprendre ñu man mi nekk village Palais mooy fay 1500 loolu xel mënu ko nangu ba pare ñu si dugal ay yoo xam ne kenn xamul lan la dafa métti lu lëndëm lu leerul lu lëndëm yaa ngi dégg la la hmm. bi ñu mujjee waxtaan dañuy wax ne léegi ku nekk loo am nga fay hmm. loolu lañ mujjee man maa port man maa wax waa dëkk hmm. ne kenn bu mu fay courant bi man maa ko lancé ñu def toog waxtaan bu ñu waxtaan ñu ne waa affaire yi métti na mais léegi ku nekk loo am nga fay mais loolu yëpp muy Sénégal bi le président Macky Sall na ko dégg ñu jële si société bii di Azir mu yóbbu ñu Senelec sonal na leen sonal nañu mhm. sonal nañu loolu daal lool laa bëggoon si wax si courant bi am mais à part mhm. courant baa ngi tàkk alhamdulilah mhm. parce que man bul fàtte ne honorable taxaw nañu taxaw bu loolu dama koy wax fu nekk man jënd naa benn doomi glace deux cent cinquante sama dëkk deux cent cinquante francs te actuellement nii nii nii nii nii glace boo sàggane ñu may la ko mbémbaayo sax boo ñëwee ñu may la glace boo ñëwee la glace lañ lay dagg <laughs> lañ lay jox mbokk yi yéen a ngi ci émission gox bi 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 xam nga bu ñu nee Foundiougne mhm. ne Toubacouta yeneen dëkk yi Sokone mhm. immigration clandestine loolu moom xam naa ni laal na leen bu baax. Mhm. ndaw yi nga xam ni tey dañuy mbëkki. Mhm. di jaar ci yoonu gaal gi. Mhm. loolu lu fa am la te ñàkkul ni sax yenn ci bërëb yooyu. ay point la yoo xam ne nit ñi dañ fay jël gaal di fa demee situation bi lan la ñàkkub xëyub ndaw ñi la walla. waaw loolu tamit dinaa si kontaan bu baax a baax a baax ci loolu Mbemba. clandestin man. Eh, arab yi dañ koy wax al mugamara parce que bul fàtte nag maa ngi dugal baatu arab yi parce que daa daara mooma produire ah mhm. loolu am na solo voilà eh, clandestin dafa nekk loo xam ne du régime bi la commencé mhm. dafa gën a wullee ñaay si régime bi mhm. eh, yàgg na l'histoire la boo xam ne dafa yàgg lool ma xam naa yaa ngi dégloon Omar Pend bu mu wax ne langue langue avion moo amoon <laughs> loolu yàgg na loolu yow léegi kon kalandi seen yàgg na ñu ñëw mm-hmm. si bato yi ñëw si gaal yi mm-hmm. man si ma doon dégg dañ doon déparé woon Maroc mais léegi nit ñaa ngi déparé Gambie mm-hmm. kon léegi bu boobaa loolu mbir la boo xam ne dafa yàgg euh, bu dee ñun suñu côté la am na fa doole ah? am na daanaka ñun ñooy victime bi ah bon waaw ñooy bi mais nag lan la si lan la si maire euh, kii bi euh, taxaw gouvernement bi nu mu si taxawee ak mair sama commune la nu mu si taxawee loolu dafa am solo loo xam pour ñu wax ko kalandisan bi Euh, le maire invité na ma directeur de DER Pape Sarr ñëw na Toubacouta. Mhm. ñëw na Toubacouta euh, moog euh, secrétaire général de sénégalais de l'extérieur mooy Sarr. Mhm. ñëw na foofu. Tamsir Sarr bu. ANPEJ mhm. ñëw na Toubacouta. ñoom yëpp sensibiliser nañ jeunes yi. mais mbir ma dafa am benn affaire boo xam dafa am gis nga tukki. benn virus la boo xam bu duggee si yow. dootoo gisale dara lu dem gis nga man mii toog nii. Hmm. gis naa koo xam ne deer daf ko financé ba pare xaalis boobu la jël dem loolu loo si man loo si mën. xaalisu DER la jël la jël hmm. dem. te yow xam nga ko te jël gaan xam naa kooku boo jëlee am na ñoo xam ne ay maçon lañ woon am na ñoo xam ne ay maçon lañ woon. liggéey te seen gox la dëkk yéen. mais suñ gox la dëkk am na ñoo xam ne ay maçon lañ woon yoo xam ne am nañ liggéey am na ñoo xam ne am nañ liggéey bu baax mais terewul dañoo dajale xaalis dem. am na ñoo xam ne ay fonctionnaire lañ ñu ngi doon liggéey ñu jékki-jékki dem c'est-à-dire lii feebar la boo xam ne day nekk si nit day nekk si nit ki. état état Europe rek mooy nekk ci kanamam. voilà tukki moo mel noonu tukki moo mel noonu bu xasee dugg si yow léegi nag. Mhm. Euh, li nga xam ne nag euh, état bi taxaw na si ak le maire nu mu si taxawee. Mhm. bokk nañ si DER ñëw nañ fa. Mhm. jox nañ leen ay financement voilà loolu nag lu ma si bëgg. loolu damaa si profité DER femmes yi mais jeunes yi des na loolu moom dama koy wax depuis léegi Pape Sarr léegi loolu. jeunes yi des na na finance jeunes yi. femmes yi regroupement yi euh, financé na leen comme regroupement femmes yi pêcheurs yi ñi nga xam ne dañuy dem si géej bi jigéen yooyu financé nañ leen euh, boo seetloo tamit euh, am nañ ay financement yoo xam ne lebal nañ leen xaalis comme ñi nga xam ne dañuy utiliser ndamaraas mhm. parce que am na doole suñ ko defalee mhm. ak agriculture boo xoolee def nañ def nañ loolu si ñoom nan lañ koy def Euh, dañ koy dañ koy. trier mhm. waaw ba ñu koy jël ba pare xolli ko jaay ko. Mhm. parce que euh, ndamaraas loo xam ne la dafa baax si tension feebar yu bari lay jar xam ne waaye bu ñu ko gisoon tey mën nañ ko jaay ay millions. Mhm. jënd ay millions parce que si am si njëriñ dafa bari. Euh, na def na loolu. yaa ngi dégg te au niveau seen au niveau national. yaakaar na yaa cinq cent cinquante sept milliards yi nga xam ne dugal nañ ko si si si jeunes yi te très jeunes yi ñu ngi dee si géej léegi lan lañ war a def ngir jubbanti ko voilà léegi nag foofu nag comme pour ma wax la ne commune de Toubacouta nu mu taxawee ak bi mhm. dëgg ay victimes lañ parce que suñu doom yi bëri dee nañ fa mhm. man jaale naa ba sonn <laughs> waaw jaale naa ba vraiment maa ngi ñaan suñu borom mhm. subhaanahu wa taala mu a dalal xelu jeunes ndaw ñi léegi lan nga leen mën a yow nekk foofu itam lan nga mën a dalalee itam seen seen xel li ma li ma mën a dalalee seen xel yi dafa bëri mooy premièrement bokk na si mooy nañ toog liggéey parce que projet yaa fa. projet yi ñu ngi foofu projet bi bokk na si projet projet bi ñuy wax parel papel mu ngi foofu di liggéey di di di di financer jeunes yi. Mhm. parel ba mu ngi foofu man sama dëkk fi ma lay wax ne jeunes yaa ngi liggéey foofu parel ba. plus de cent millions dugal na ko si si si fu maire euh, kii collecteur noonu ñu te fa forage mhm. te am nañu si tëgg am am nañu si tëdd eh, maa ngi nuyu sama xarit bi bu ñuy wax Lamine Mandiang mhm. parce que am na si xam lool Euh, sama dëkk la dëkk moom mu ngi porter combat bi mu ngi sensibiliser jeunes yi pour ñu jublu agricole. Mm-hmm. autosuffisance autosuffisance euh, locale. Mm-hmm. dafa am solo si dund. li ngay béy dund. Mm-hmm. dundee ko dafa am solo. yaa ngi dégg kon jeune bu bëgg a toog. am na loo xam ne war nga ko mun a toogee parce que àll baa nga ne wan ñombaata moo nekk loo xam ne loo fa jaay loo fa ji mu sax àll baa nga ne wàng ku bëgg a liggéey di nga liggéey. yaa ngi dégg kon parel ba muy foofu World Vision muy foofu àndandoo muy foofu papel muy foofu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay ay ay ay ay projet la ñu ngi foofu te xale yi dañu leen fan na ñukk dem kon loolu du problème eh, du du du du problème boo xam ne monsieur le maire mën na si dara mu ngi si góorgóorlu nag. Mhm. wala état bi état bi mu ngi def lu lu mu mën. phénomène la boo xam ne ñëpp ngi ciy wax. voilà mhm. bu xew xewee rek xew na. Mhm. mais man bokk na si sama xalaat bopp. lu bokk na si li li gën a dangereux affaire yi mooy booy nekk si kaw. ci hmm. influence yi ñu nekk fii gis nga loolu foog état bi mu xam loolu politique boobu mu xam ko booy nekk fale ñoo leen di wax ni ñëw leen surtout bi ma déggee ne Espagne dafa soxla ne ay <laughs> waaw am na pas yu bari dee dañoo soxla ay emploi ñëpp na yow dem ñëpp de fu mu toll nii lu dee lu dee rek rek rek yaa eh, naka eh, quatre cent et quatre cent quatre vingt personnes yi nga xam ne dee nañ si géej bi. seen gouvernement nangu te joxe chiffre. mais loolu moo am. <laughs> loolu moo am. loolu moo am am loolu chiffre la boo xam ne sax euh, provisoire la mais ëpp na loolu man maa la ko wax na loolu ñu dee si géej bi dafa bari parce que man jot naa si information parce que xam naa jour euh, damay def investigation lay def mhm. comprendre mhm. kon bu boobaa loolu mbir la boo xam ne ñu ngi siy taxaw mais maa ngi euh, lancé message tamit sama jeunes yi sama morom yi mhm. di leen wax ne nañ toog si dëkk bi lépp lu ñuy wut fale am na fi lépp lu ñuy wut Europe am na fi te bu ñu si toogee tey nga liggéey fii gis sa ndey gis sa baay gis say doom gis sa jabar mhm. loolu dara gënu ko mhm. nga am loo tëddee man loolu laa ginnaaw ginnaaw bi ñu jàngee ba pare nañ toog ñu liggéey mhm. suñu dëkk est-ce que pression bi nekkul ci waajur yi ci famille yi que ni euh, boo amatul duñ la xoolee benn bët bi est-ce que nekkul waajur yi ñooy indi pression yi ci xale yi waaw mbém baa xam nga loolu boo ko waxee loolu dama koy dégg lu bari di ko wax man gëmuma loolu benn parent gëmut bëggul sa doom di dee si géej si ski bi si géej bi. Ah, mais am na ñoo xam ne balaa ñuy dem dañuy tàggool ñu ñu ne leen dem leen. mais am na ñoo dem tamit mhm. Agadeer Agadeer. Mhm. après ñu soog a ne papa maa fii ñu ngi fii nii nga envoyé ko xaalis parce que doon nii mënatoo ko delloo si léegi li ngay def mooy nga jàppale ko mu dem. Mhm. loolu la def am na ñu jaay seen nag yi am na ñu jaay seen lii. loolu am na fi. kon euh, du problème boo xam ne euh, en cent pour cent parent yi donte nag am nañ sa part de responsabilité dëgg la mais nag problème bu bëree bëree bëree bëri jeunes yi si boppam la parce que li ñu leen góomloo moo amul Europe neexul ñun def nañ si investigation xam nañ Europe neexul Europe hmm. lu fa nekk lu fa nekk dafa métti surtout jamono ñu toll nii nii nii nii comme delloo bi ñuy wax ne dañ koy delloo état bi di ko delloo parce que loolu loolu mooy solution bi hmm. Europe daf ñu war a jàppale si loolu ñoom tamit dañ si war a taxaw mhm. mais daal li ma la bëgg a wax nag loo xam ne moo congrès la mhm. mooy am na ay projet yi nekk si gox bi mhm. nañ toog di liggéey buñ ko buggee nañ laaj ay renseignement ñu financé leen DER banque si action bi Papel mu ngi fi World Vision mu ngi fi Parelba mu ngi fi donc jarul euh, yàkkamti mais jarul yàkkamte jarul yàkkamte yow tey boo jaayee say nag man gis naa koo xam ne dafa jaay ay suufam mu yóbbu doomam asaf la jar jarbaatam kay laa bëgg a mu yóbbu jarbaatam ay suufam la jaay mu yóbbu jarbaatam. kon phénomène boobu doy na war foofu ah. mais c'est grave c'est man war naa wax ne tey euh, clandestin bi bu doon cent la. mën mhm. naa la wax ne soixante dix pour cent. kon est-ce que est-ce que kon gouvernement bi mhm. Mhm. ñu bari boo seetloo tey ñun boo ne pêche. da ñu tudd te ñu siy dem ñu bari ay ay kii lañ naka lañ ko ay pêcheurs lañ. boo seetloo. am na ñoo xam ne duñu ay pêcheurs parce que tamit état bi daf si war a góorgóorlu tamit man tamit loolu tamit dama koy wax. am na ñoo xam ne dañ ne jën jën moo amatul si géej gi moo tax ñuy dem. loo xam ne jën amatul si géej gi loolu ñu koy wax. ñu jël kooku si ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. Ah, aleykum salaam. soxna si walla sëñ bi ñu ngi lay ziar. ah. ñu ngi lay ziar ça va. ça bëgg euh, contribuer ci émission bi. tur bi nan la. El Bakary Diène. El Bakary El Bakary bisimilah. Euh, ci émission gox bi laa bëggoon a ñu ngi lay dégg bu baax. waaw ñu ngi siyaare bu baax a baax. Mhm. Euh, di jaajëfal suñ waajooju suñ mag ji Modou Dione. Mhm. merci. allo. ñu ngi lay dégg bu baax yow lañuy ñuy déglu allo. rëcc na kon euh, moom. waaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax. moom tamit nit ku baax la. ok vraiment jeune la boo xam ne mu ngi def sensibilisation ci nit ñi. Mhm. te jàngalekat la baax la macha allah. ok léegi est-ce que tey euh, jotul gouvernement bi baral jéego yi li ci mel ni port Foundiougne. Mhm. port bi nga tudd léegi. ngir mën a euh, baral. Mhm. balaa ndaw yi di jël gaal yi di dem. est-ce que tey loolu jotul mu def ko mu baral liggéey bi. mais Memba. xam nga ne képp ko xam Macky Sall mhm. képp ku xam suñu maire lu muy taxawee si assemblée chaque jour mu wax ko te man waxoon naa la ko si njëlbeen émission bi ne état bi mu ngi si yow kay toogal seetaan na nga xool. Mhm. léegi léegi mu ne. ok ñu jël mbokk moom salaamaaleykum allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi tur bi ak foo ñuy ah, woowee. maa ngi lay dégg Seyba Diop. ñu ngi lay bisimilah yaa ngi ci biir waaw. allo. dégg bu baax. waaw euh, maa ngi rafetlu bu baax seen euh, émission bi. Mm-hmm. Euh, di nuyu sama mbokk Modou John. Mm-hmm. nga xamante ne moom ngeen invité. Mm-hmm. ci programme bi. Modou John am na yu mu wax xamante ne wax nañ ko. ci rajo bi ñu ngi koy rafetlu bu baax. di déggal respect. ci programme corona bi. Mhm. gars yi ni ñu respecté euh, euh, mesures barrières yi loolu ñu ngi koy déggal. Mhm. mais dinañ wax ci benn fànn bu nga xamante ne zone euh, bi gox bi mu ngi koy jooy. Mhm. mooy spécialement suñu dëkk daa silaame soose. allo. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw boobu dinañ ci ñëw tuuti mooy ci wàllu ndox mi ak wall courant bi. Euh, ñun mën nañ wax ne walla ndox mi sonn nañ ci torop mhm. te gisuñu ñu euh, monsieur le maire ndox manqué na foofu suñu gox mhm. parce que lan mooy manquement ndox tey boo demee bu mënoo accès si ndox mhm. boobu manque la si population bi parce que ndox bi dafa cher ndox bi dafa cher lool mètre cube bi mu ngi dem bu ay trois cent francs loolu dafa cher ñëpp ñemewuñ dugal ndox yooyu yoo tax te jeune boobu si li ñuy dund metti na. Mhm. ñun secteurs yi nga xamante ne mun nañu acti euh, mun nañu jàppale mooy agriculture te agriculture Sénégal gis nañ ñu nekkee en retard. Mhm. ak si pêche la pes bi Foundiougne pêche bi doxu mhm. ñuy def pêche dañuy dem ay euh, Joal lañuy dem wala ay côté Kafountine yooyu la ñuy dem Casamance. donc ñun dañoo sonn. lu jëm si wàllu kii bi tamit naa ci daa am lu ma ci wax tuuti. ngeen baal ma. mooy mhm. courant bi. Mhm. courant bi dëkk bi moo dem ba benn instant révolté wu. Mhm. commencé kaasal seen bopp. monsieur le maire def ñu négligé ko côté boobu domaine boobu naa ko wax ci rajo ñëpp dégg ko. Euh, mais maa ngi leen di bu baax tamit ñu mën ñu revenir mën ñu mettre en considération ñu mën ñu jàppale. ci wàllu courant bi. parce que tey courant bi ñun ñoo dem ba gisal suñu bopp ne luñ ñuy teg dafa métti. Mhm. ay facture trois cent cinquante mille dégg naa wax na ko foofu. Mhm. mais maire bi monsieur le maire honorable député jàppale wuñu si. Mhm. ñun ñoo révolté ba def defalal suñu bopp ay vidéo yoo xamante ne dañ ko def jox yeneen responsable politique ñoo ko yégal ci assemblée nationale. ok ok. ok pour ñu def ko plénière. ok ok ñoo ko yóbbu assemblée nationale. ok donc foofu négliger nañu. ñu dem encore suñuy délégation gox yi nga xamante ni ñoo fex courant boobu courant projet mooy su côté Daafilaana Sow fa lay waxee. Mm-hmm. dëkk yi nga xamante ni ñoo fex courant boobu ñu defaat ay délégation dem si sous-préfet bi. Mm-hmm. sous-préfet bi ko euh, invité ñu. Euh, directeur général courant boobu. Mm-hmm. projet bi. mu ñëw ñu waxtaan. ok baax na dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëwaat dégg nañ. Euh, xamante ne ñun loolu la ñuy jànkonteel ci suñu joom. ok am na solo. parce que monsieur le maire dara ko Mhm. moom ci courant boobu la dëkk moom fay na ci ay ay facture mhm. yoo xamante ne cher nañ trop. Mhm. mais ñëw ci bu population bi moo gis ne nii vraiment ñun mënuñ dund si lii mënuñ fay trois cent cinquante mille. waa Dakar di fay ay. waaw moom wax na ko léegi léegi moom wax na ko léegi léegi dinañ ci ñëwaat. di la uh-huh. jaay waaw dinañ la jaaf jaajëfal bu baax allo. allo oui. waaw dinañ ci ñëw moom junj na ko léegi léegi ñu bàyyi ko mu tontu ci ponk boobu. waaw très bien lu ñu jëm ci. Euh, tënku ko rek tënku ko temps bi léegi mu jeex temps bi daf ñoo xooj. yoon fundum bi boobu la ñuy wax. ok boobu tamit dinaa ci revenir tuuti. Mhm. di invité waat autorité yi. ñu mhm. jàppale ñun ñi nga xamante ni ñoo fa dëkk. ñun agriculture lañ am. suñ mhm. dëkk ci bassin arachidier bi lañ nekk. ñu jàppale ñu ci jiw gerte bi. te la ren def nañ ci tuuti effort mais ñu jàppale ñu jiw yi ñuy teel a ñëw. te jiw yi tamit ñuy fexe jiw yi di baax loolu dinañu dinañu soxla te dinañ ko soxla lool mm-hmm. et puis secteur yi tamit ñu jàppale ñu tamit zone Foundiougne boobu ñu mel noonu war nañ am benn usine boo xamante ne population jeunesse yi mun nañ ci liggéey parce que port bi moom port bi moom si ay waxam lañ wax ñi si wax yi lañ dégg dañuy dégg port port port port mais port bi man bu may jaar Foundiougne gis ma ci évolution donc ñu ngi leen di ñaax ci foofu tamit ñu def jërëjëf jàppale bàyyi ñu ci xel parce que am nañu ay étudiants élèves parce que koo gis dafa am ay option boo feelee ci boo essuyé ci option bi beneen option ngay jël uh-huh. loolu mooy tax boo xoolee ren da nga gis ci bate yoo xamante ne ay étudiants dañ ciy bokk uh-huh. parce que amul amul benn métier professionnel te nekk nañ majeur léegi war a jàppale seen parent yi loolu mooy waral ñu bëri di dugg si gaal yi di dem ñaxtu parce que mënoo seetaan sa papa ñu koy fayekuloo ay trois cent cinquante mille facture te du ko am ngay toog te defoo dara loolu mooy waral ñuy dugg ci jaal euh, bi boobu tamit bu ngeen ci mënee wax ngeen invité jërëjëf yi ñu mën ñu jàppale ñoo xam ne am na étudiants yu nga xamante ni defuñ dara uh-huh. euh, dinañ ñor trop ñu utal ñu sax benn liggéey professionnel boo xamante ni dinañ ci mën a former ci jeune de Toubacouta boobu ak jeune yëpp yu fa nekk ci Foundiougne parce que Foundiougne. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf am na solo ñu koy sant bu baax di ko gërëm moom woote na. Uh-huh. am na ponk bi nga xam ni doo si delluwaat parce que wax nga ko. Uh-huh. Euh, mbirum ndox euh, kii bi électricité bi. Uh-huh. mais mbirum ndox mi. am na fu mu wax ni. ñoom itam sonn nañ lan nga leen mën a wax ci loolu. voilà xam nga Mbemba. nuyu ko ba pare jaajëfal ko eh, itam maa ngi koy gërëm sax di ko mm-hmm. sant. Mm-hmm. Eh, sama rakk la. Mm-hmm. sama doomi nijaay la. Eh, étudiant la en université UCAD. maa ngi koy gërëm di ko sant si loolu. mais dama la bëgg a wax ne. gis nga ndox bi. 300 francs la ñuy jaayee. mètre type bi. mais am na dëkk yoo xam ne foofu lañ commencé woon 400 francs lañ commencé woon. mais léegi loo gis ñun bu ñu amee ndox ak léegi. Mhm. mais motul ay trois ans quatre ans yooyu motu ko. Mhm. léegi nag ñu ngi commencé. Mhm. dëkk bi nga xam ne lii bi foofu la nekk euh, forage bi foofu la nekk. amagul courant. Ah. amagul courant mooy li bokk na si dëkk yi nga xam ne dañ leen natt. mooy douze kilomètres yi nga doon wax fii léegi. waaw comprendre nga ma leen mais léegi est-ce que mënuñoo xaar ba loolu mu mat. pour ñun ñu wàññi ko. mais léegi nag bu dee constitution bi mu ngi dem. maanaam liggéey bi mu ngi encore. man si li ma jàpp mooy loolu yàkkamte uh-huh. xaju fi uh-huh. yàkkam yàkkamte xaju fi na seen xel dal ne maire uh-huh. lépp loo xam ne njëriñu gox bi la mu ngi si taxaw lépp loo xam ne njëriñu gox bi parce que li tax li indi li indi ndox bi bi yóbbu ko si dëkk bi kooku doole boobu mën na ko wàññi doole boobu mën na ko wàññi kon léegi bu boobaa fu ñu toll nii amuñ problème ndox dëkk yëpp am nañ village xam nga dégg nga waxut lool mhm. waxut lool mhm. yaa ngi dégg seeraay bi lay wax ah. parce que dañ doon wax ne amuñ woon ndox ah, wax nga ko fii léegi waaw amuñ woon ndox léegi cent cinquante mhm. waa léegi boo ñëwee si électricité bi électricité bi wax naa ko fii dootuma si delluwaat parce que wax naa ne cher na ñaxtu naa ko maire dégg na ko mais li ma munta dégg mooy maire taxawuti mm, ah kon taxaw na ci mais taxaw na si taxaw na si parce que loolu moom si boppam moom moo ko wax boppam ne moom moo wax léegi ne maire si boppam dafa bokk si ñu koy fay loolu victime victime la si. Mhm. taxaw na si. kon léegi moom mënul wax ne kon maire taxawul si loolu nit mënu ko dégg mbay mënoo dégg loolu. <laughs> mu bokk si ñi nga xam ne dañoo bokk si courant boobu mu wax ko wax ko assemblée assemblée kan moo fa nekk ku muy wax ne ñun ñoo eh, kii bi population bi moo jógal boppam bi pare muy dem assemblée kan moo leen nekkal assemblée monsieur le maire. Mhm. kon monsieur le maire moo leen nekkal assemblée. Mhm. projet lii bi wax ji yóbbu na ko fa. est-ce que di nga ko taxaw est-ce que di nga ko ñaax que ni ministre bu ñu dénk wàllum euh, pétrole ak énergie bi bu demee assemblée nationale que ni loolu itam mu nekk seen projet bi nga xam ne dina ko fa wax assemblée. mais loolu wax nañ ko. Mhm. démb maa ngi woon assemblée barke démb maa ngi foofu démb maa lépp loo xam ne wax nañ mhm. lépp loo xam ne am na njëriñ si dëkk bi mhm. fàttaliku naa ko pour mu wax ko courant bi si la bokk yaa ngi dégg li ma la kon courant bi bokk na si loo xam ne daf ñu gën a lor mais maire ñu ngi ko si gërëm ko si le le ministre tamit mu ngi si taxaw. Mhm. mu ngi si taxaw parce que mu ngi bokkut si mais mu ngi dégg li bi eh, ñaxtu yi man moom si ko man eh, xam na ko. ok yaa ngi dégg voilà. su ma la déggee comme émission bi. juróomi simili rek. moo ci mhm. def. Mhm. alors. Euh, dama bëgg a. waaw lii manquement ndox bi. dafa am wax yoo xam ne taxawul. boo nee am nañ manquement ndox. ba pare nga ne ministre bi moo moo moo moo ëpp. maanaam moo bari. loolu du manquement ndox. loolu jafe-jafe la boo xam ne mu si biir. Hmm. mais ndox moom ñëpp am nañ ko. loolu kenn ko dindi village yi. village yëpp am ndox am nañ ndox amul problème yóbbu na fan ñëpp ndox. Hmm. léegi wax ji mooy li ñuy wax nii mooy nañu wàññi métti type. Hmm. léegi nag loolu jéego la. di ngeen ko xeex yéen ci kanam dinañ ko baa ngi mouvement ànd liggéeyal suñu gox. loolu moo ko tax a jóg. te mais nag dafay ànd ak maire. pour ñu xeex loolu parce que loo gis dafa am nu ñu koy xeexee. su ma la déggee mooy waaw euh, maire bu uh-huh. bi tey li mu def foofu yëpp gongo waaw mën na. Eh. amaat ñaareelu mandat ci élection yi. troisième mandat. non ñaareelu mandat ci seen gox yi. waaw waaw maire. Mhm. bu amoon ñombaatu. fu mu mhm. toll nii. Mhm. maire lañ àndal loolu ñëpp xam nañ ko. quatrième mandat sax bu ko amee ñombaatu fekk ko si parce que moom mooy le vrai lion de ñombaatu loolu ñëpp xam nañ ko loolu ñëpp reconnaître nañ ko Macky Sall si boppam xam na ko ki moom ñombaatoo Pape la loolu ñëpp nangul nañ ko ko xanaa ku leneen tax a jóg. mais Pape moom moom moom ñambaar loolu moom sama loxo ci kaw. mu ngi xeex euh, mu ngi xeex dëkkam. Mhm. si biir dëkk bi mu ngi xeex assemblée. Mhm. te lu mu am mu yóbbu ko si dëkk bi. te moom mooy seul maire ba di nga ma may ah, mi nga xam ne saa yoo ko woowee jot ko même minuit yi boo ko woowee nga jot ko. moom mooy mhm. seul maire mi nga xam ne saa yoo ñëwee si maire bi nga fekk ko si kanamu maire bi. boo ko ne salaamaaleykum mu ne salaam lépp loo xam ne soxla ngeen ko boo leen ko waxee dafa déglu bu baax askanam ah bon te ba pare dafa circulé seen biir mhm. dafa jege askanam te loolu la ñuy doyee maire loolu la ñuy doyee maire kon bu dee département bi la mhm. mu ngi ciy taxaw bu baax a baax a baax mhm. ñaar yi nag dama koy tëjee pour nga bàyyi si xel ndox bi ak courant bi ndox bi demee na côté euh, kii bi naka la ko séeraay bi la ñuy wax te dinañ si taxaw maire moo ngi si taxaw mhm. courant bi dëkk yi nga xam ne dañoo des mhm. na seen xel dal ne bu soobee suñu borom incha allahu rabbi mandat bi ñu ñëw nii buñ mhm. ñu buñ buñ ñu falaatee dëkk yëpp kenn dootul ñiitaat tiitoo leen ñeneen ñi nga xam ne taxaw bëgg a jël mairie bi mais ñun duñ tiit parce que lion lañ yor duñ tiit duñ tiit lan mooy kàddu gu mujj gi tey euh, ngir tëj émission bi. daanaka jeex na ba pare émission bi nag dafa gàtt lool. waa xam na am na yeneen <laughs> émission itam ñàkkul ni. di fi ñëwaat wala maire bi ñëw toog eh, fii. voilà léegi nag kàddu gu mujj gi lan la. kàddu gu mujj bi mooy mhm. maa ngi gërëm bu baax a baax a baax sama waa dëkk. daa mhm. si laa mi soose mhm. ndaxte lépp lu ma am. ñoom la. lépp lu ma am ñoom la fu ma yëgg. ñoom la ñu jël kooku noonu si ligne bi ñu tàggatoo benn yoon salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. Euh, sëñ bi ñu ngi lay ziar. allo. ñu ngi lay ziar bu baax. Ibrahima Demba la. Ibrahima Demba une minute lan nga ñu mën a wax tey ci invité bi ak sa dëkk Niombato ak euh, Toubacouta. allo. une minute rek dañuy tënk. allo. allo. allo. rëcc na ñu bàyyi la nga continuer waaw maa ngi koy gërëm <laughs> Ibrahima Demba sama rakk la ñu baax lañ moom yëpp samay éléments lañ bokk macha allah. Mhm. mais li ma la bëgg a wax daal mooy. Mhm. le mu ngi taxaw mën naa wax ne bu mu nekkee maire ba tey réussir na en quatre vingt pour cent. Mhm. nit nag mënoo matal cent pour mais quatre vingt pour cent bi moom matal na ko ndox bi cent pour cent. ok électricité bi daanaka mën naa la wax ne soixante quinze pour cent matal na ko. mu ngi dem te ñu ngi koy ñaax tamit mu gën a góorgóorlu pour mm-hmm. yeneen dëkk yi nga xam ne amuñ mm-hmm. te chargeur problème euh, chargeur courant bi lii leen ñu matal ko léegi nag mm-hmm. maa ngi gërëm tamit duma ma fàtte mukk lépp Euh, secrétaire général du gouvernement. Mhm. monsieur Abdoulatif Coulibaly. Mhm. ndaxte ni mu taxawee département département bi gis nañ ko. Mhm. mais l'honorable député mention spéciale pour moom. ndaxte mu ngi reyante. mu ngi du nelaw guddi ngir ñombaato kon na ko ñombaato waa ñombaato xamal ko te xam naa ne sax moom lañ àndal. parce que ñombaato muy taalati loolu ñombaato loolu kii la nag baatu soose la. waaw incha allah mais maa ngi <laughs> Amar Sarr tamit maa ngi gërëm ñëpp sama waa dëkk sama waa commune sama waa yow tamit maa ngi lay gërëm di la sant si invitation bi jërëjëf xam naa ne émission bi gàtt na la mais konoon dinañ mën a gën a leeral lu bëri bëri bëri bëri si loolu voilà incha allah di la sant bu baax te puis tamit am na loo xam ne tamit waxoo ko mhm. éducation bi laal na si mhm. éducation bi ah. def na si lu ba ñëpp jot nañ seen situation bi mhm. sport bi ñëpp seen situation bi jot jot nañ ko chaque année dina leen ko jox étudiants yi jox na leen deux millions cinq cent ren loolu nañ nañ ko si bàyyi xel ba deux millions cinq cent jox nañ leen ñëpp ku nekk jot na ko kon léegi moom monsieur le maire njaaraama mais na gën a góorgóorlu incha allahu sa kaw ca kanam. merci beaucoup Modou Dione ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. merci ci ni ñu nangulee invitation bi fii ci rajo Rewmi FM kon mbokk yi. Mhm. ñu ngi leen di jox dig daje ba dimanche prochain. ak beneen invité incha allah fii ci émission gox bi di gërëm. ay dara ak euh, Paris supporter Paris Saint-Germain bële. Mhm. nga xam ni te nañ gagné moom Adama Diallo jox leen dig daje rek beneen dimanche incha allah moo du Diagne ñu ngi lay euh, gërëm bu baax di la sant. jërëjëf gërëm naa la merci